jafandul su ma yeboo di la ñaanal iyo yaay xereeru dalaw piki piki yaay ramatu da internet sans limite sn point com euh, bienvenue ñu ngi leen nuyu di leen dalal ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi koy amal di ko sekk ak ki nga xam ne moo di Cheikh Mbacké Gadiaga Cheikh Mbacké Gadiaga président fondateur groupe euh, CMG communication euh, di proche Cheikh Amar nekk aussi un chroniqueur boo xam ne nii day wax ci wàllu actualité Cheikh Mbacké ga ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sans limite auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sëriñ Muntaxa xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ànd ak wér di nuyu cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Khader di ko ñaana suñu borom defal ko fannu gudd te ànd ak wér ñi ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu sénégalais yi di nuyu ñi nga xamante ni ñooy suivre sans limite point com di leen nuyu yéen waa rédaction bi yëpp. Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yi ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux na ñu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance Euh, jërëjëf euh, Cheikh euh, ñu xam ne ku la xam-xam ne proche nga ci homme d'affaires bii di Cheikh Amar gannaaw fan yi génn mu amoon accident boo xam ne nii xawoon na ci am ay gaañu gaañu ba dumeel yuñ mujjee dégg ñu ne génn na ci ba dellu na këram ñu bëggoon xam ndax information bi lu wër la ak ci ban état de santé la toll fi mu jamono ñuy wax nii. sant na yàlla bu baax a baax génn na yàgg na trop ba sunu borom def na ci tawféex. ba incha allah fan yu néew dinañ ko gis ci appelu xel koom bi nga xamante ni ñi ngi ko dëgmal ci fan yu néew incha allah. waaw dañuy wax euh, rek ci actualité boobu lu jëm ci wàllu xel koom ak ñi euh, nga xam ne mooy euh, Serigne Saliou ndax ku wax Xelcom tudd Serigne Saliou mu gis fan yi ki nga xam ne moo di le xalif général des Thiantakoun di Serigne Cheikh Saliou cuun Gueule Tapée mu am benn déclaration boo xam ni def na ko wax ki nga xam ne moo di xalif Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Saliou Mbacké. ne que li nga xam ne moo jëm ci wàllu toolu Xelcom yi ñoom nañ leen ko jox ñoom cantaaku nii ñi nga xam ne ñu ñu lépp lu jëm li ci war ñu ci war a def ñu def ko euh, ñu gis ne toolu xel ko yi yéen euh, daan ngeen ci ràññeeku bu baax ku ci mel ni Cheikh Amar euh, ñu ci bëri di posé wu question ndax Cheikh Amar yar wërgu-yaramam moo ko mayul doole bi wala dafa bëgg gën a yokk doole yi taalibe yeeg comme ni nga xamee ne cantaaku ni ñoom ñu am Pastef lañ ci wàllu mbooloo yooyu noonu euh, déclaration bi d'abord nga wax noo ko gisee ak euh, ndax Cheikh Amar réellement instant bii nii jàkkaar ngeen ne mën na continuer di di diriger travaux ko yi. waaw loolu liñ ci wax rek mooy bëtu tan xeeb na ndawalu sànq lañ ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Saliou ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér euh, bi muy jël initiative pour def Cheikh Amar jëwriñ ji. dafa dëggal li Serigne Saliou Mbacké defoon ndax keroog bi nu joxee Cheikh Amar kër fii ci Touba bi ñu ñëwee mu ne sëñ bi fañ ma dagal de gis naa ko waaye àll sëñ bi ne ko jamono ngi ñëw di nga xam li tax ñu jox la ko boo jugee Touba di dem xel ko moom ngay njëkk a jot soo jugee Xelkom di ñëw Touba moom ngay njëkk jot kon boobu liggéeyal ko ci tollu kom moo taxoon ñu jox ko Serigne Cheikh nag nit la boo xamante ni euh, lépp loo xamante ni def na ko rek kenn musu ni accam Cheikh Amar day nit koo xamante ni dafa mat li mu doon yaakaar naa nag nit ku nekk am nga droit wax sa xalaat parce que ci réew moomu la nekk waaye bu fekkee nit dafa bëgg am beneen taxawaay bu mu def ci kër sëriñam warul laaj dañ ko war a xool ne ko yow kat lii lañ lii lañ la sant yaakaar naa Cheikh ñun ñi ko wër ñun ñi ko wër ñëpp xam na ni nit la boo xamante ni du dox ci ay polémique du tontonteeg ay nit ñu nga xamante ni franchement gis nañ ni fan yi ñi ngi naan yaama ni maa leen dugg ci cadre boobu cadre bi ñuy dugg daal mooy ñi ngi sensibiliser taalibe murit yëpp. mais li sëñ bi wax Cheikh dara new ci. waa non moom loolu wax dëgg neex yàlla euh, la commentaire est libre moom loolu moom la engagé waaye li ñuy wax rek mooy ñun ñi ngi woo. ñi nga xamante ni ñoom lañ daan woo ñëpp ñu ñëw incha allah ci liggéeyu xel ko bi ci fan yu néew waaye liggéeyal Sëñ Tuubaa du da ngay demander dañ la koy jox. mais est-ce Cheikh Amar réellement euh, wér-gu-yaramam état de santé may na ko pour mu diriger liggéeyu Xelcom bi. Cheikh de dafa baax rek. waaye su ko neexoon sax du feeñ ki nga xamante ni mooy rakkam di ginnaawam di kanamam di Abdou Kader Ndiaye ci kàttanu yàlla fan yi at yi ñu weesu yëpp daanaka ñun ñooy ànd liggéey liggéey bi yëpp Cheikh doog a ñëw. Cheikh yàgg nañu jox ay moyen jox ñu ay privilège jox ñu lépp mais Cheikh rek daanaka mu ñëw mu ñàkk ñëw yëpp du tee liggéeyal Sëñ Tuubaa moom kanam la jëm jëmul ginnaaw waaye fan yu néew danañ ko gis mu def appel bi tane na bu baax a baax alhamdulilah. waaw dañuy dañuy dese rek ci actualité boo xam ne ba léegi sorewul lool ñu gis euh, ki nga xam ne moo di euh, Cheikh Béthio Thioune ñuy ñaan yàlla sunu borom mu yokk ay leeram bi mu fi bàyyi ko ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh Saliou Thioune Gueule Tapée am ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom am beneen wàll woo xam ne nii soxna Aïda Diallo Saliou comme ni ñu koy waxee moom ñoom la ñu àndaloon ñu gis euh, soxna Aïda moom euh, màggal gi ngaabu la ko passé ñu gis euh, ginnaaw loolu sëriñ bi recevoir ko ba am lu mu jote wax ak moom mu génnaat defaat sorti ba sëriñ bi sax defaat beneen euh, sorti boo xam ne lu mel ni ku koy dànkaafu wax ak moom ba par la suite gis nañ ay taalibe yu mel ni ku ko doon bëgg attaque attaqué fekk si ko fële foo ca ngaabu ba mu daw ñëw dakaar ginnaaw information yu mujjee jot génn ci réew mi yow d'abord euh, noo jàngatee mbir moomu mooy euh, position ki nga xam ne moo di soxna ay Aïda Diallo d'abord ak sorti bi nga xam ne sëñ ndax def na ko ak li mu génnee réew mi yow ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am rek mooy nekk ci ginnaaw Serigne Mountakha di murit di taalibe Serigne tubaa am lu bari loo xamante ni naqari na murit yëpp ndax Serigne Mountakha mooy Serigne Touba su xasee wax ay jëfam waaw la sant. gis nañu keroog bi Cheikh Mouhamadul Bachir Abdou Khader woowee Cheikh Béthio ni ko Cheikh Sidi Mokhtar nee na. cheikh yi jigéen yeeg yooyu noonu dafa bëgg mu dakk cheikh Béthio ca mbaaxam nga ca teddam nga dañu ko ci saase su bëggee sax sama seex ma delloo ko ko mu ne ko sab seex sañ Saaliw moo defoon kon loola téléphone la rek bu xalifa bi génnee def appel la mu waroon a def mooy jëfe mais un espèce Saaliw Sàmb moom nga xam ni malfaiteur la day jël ay kàddu yoo xamante ni day dëppook dëgg mu koy kole nit boo demee ba jiital jigéen ni mooy sa sëriñ ba pare ni da ngaa jàng kooku dañ laa war a rey kooku lislaam rey na ko kon Saliou sàmbu euh, xam-xamam kenn nawlootu ko. waaw ñu bëri dañ jàpp ne sax li nga xam ne mooy soxna ay Aida parole yu bëri yu mu doon yëkkati euh, Saliou Samb moom moo ko ci doon dugal. ah mais Saliou Samb moom kenn rafetluwul jëfam parce que boroom xam-xam bu xam ni lii la lislaam wax boroom xam-xam bu xam ni lii la diina wax nga jëfe leneen dan laa war a rey kooku murtat lan lan lan ko tuddee daanaka kon. yaakaar naa li xew ci réew bi ñëpp gis nañ ko waaye nag dinaa ko yóbbante benn wax ni ko sëñ mun Muntaxa dafay nekkal sëñ Tubaa te sëñ Tubaa dafa bindoon ni sama yoon bi maa ko yor ñeenti junni at lenn du ci sikk te sëñ Muntaxa li mu wax rek nee na liggéeyal sëñ Tubaa bi kenn mënu ko yàq ku ko jéem a yàq yaay yàqu rawatina nag ku yàq Saliou Samb da nga jàpp ni nit bëgguma sax bëgguma sax ñuy wax euh, ñuy tudd ñuy tudd ñuy tudd Saliou wala ñuy tudd Samb nan ko tuddee beneen tur te xam ni moom. ku xam turam dëgg sax xam ni euh, kéwél du juddu doom ji bët moom ni mu waxee rek la war a waxee parce que malfaiteur la kenn kontaanul ci ay propos euh, jigéen bi mu topp ay alalu àdduna moo tax mu topp ko du leneen parce que gis nañu nii moom xam na fi dëgg bi féete dafa waroon dem ànd ak Sëñ Saaliw Cuun mais bu ëlbatikoo ànd ak jigéen koromp buñ ko koromp ak ger buñ ko ger moo tax mu def loolu. ñu gis euh, bi nga xamee ne sëñ Muntaxa def na sorti dànkaafu leen wax ak ñoom. ñu bëri dañu ñaawlu sax euh, moom sorte bi mu def ndax dañ jàpp ne bu demee ba yëkkati yenn kàddu yi naan suñu borom buy euh, tudd say ayib boobu daa fekk mu nar laa yërëm waaye suñu sa moroomu jaam buy tudd say ayib boobu daa fekk mu nar laa weer ñu mel ni day mel ni kuy tontonteeg xalif bi waaw moom dafa yebaate xam nga yaakaar naa sax man bëgguma woon a wax waxam parce que nit la boo xamante ni ñun ñi ko xam xam nanu ni ni mu waxee rek la war a waxee parce que ku juddu wax dëgg yàlla mel nee na ni noonu rek nga mën a mel waaye nag saay-saay du fi mës a jóge moom ñi ngi koy dànkaaf di ko wax ni waxam dafa bari te bu waxatee jëmale ci sëriñ bi ñun taalibe sëriñ Tuubaa yi nag incha allahu rabbi danañ ko jëflanteeg moom na tëj làmmiñam noppi ndax sëriñ Muntaxaa bu waxee waaw la wax ji war a tudd warul tudd neneen wax dëgg yàlla ñooñu sax wax ak ñoom li Youssou Ndour ni bojo bojo moo ci nekk man awma sax xol pour wax ci ñoom parce que damay wax lu ëpp daal. waaw mais dañoo nekk ci actualité bi rek ñu gis euh, ki nga xam ne moo di soxna Aida moom Saliou génn na réew mi gàddaay yow noo noo jàngatee lool. c'est li may wax rek ci wàllu boobu mooy ñooñu moom li Sëñ Muntaxa wax ci ñoom rek. man de wax dëgg yàlla bu buñ ko waxoon ci sama mbokk dootuma bokk ak moom kër dootuma bokk ak moom ndabu lekk dootuma bokk moom dara yoonu Sëñ Tuubaa bi kenn mënu koo yàq rawatina ku yàqu kon ñoom fi leen nit ñi qualifié ñëpp xam nañ ko Sëñ Muntaxa nag ñi ko miin xam ko ñun ñi dëkk Tuubaa xam nañ ni dañuy muslu di gis muy yor beneen kanam ndax sëriñ Touba bu fees dell tarbiyu xalifa sëñ Touba yi sëñ Saaliw amoon fu mu ko teg sëñ Mortala doomi sëñ Touba yëpp amoon fu mu ko teg ndax ñu bari gis nañu ni cër bi mu am ci yoonu murit da koo liggéey kaalaam da koo njëkkee takk ci ndigg mu doog a ñëw ci waggam yi kon sëñ Muntaxa day koo xamante ni ñun Touba dañ koo ragal lool ba ay waxam sax dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tuub di dégg muy waxee nee na ni parce que day Sëñ Tuubaa bu mat sëkk fi mu nekk waaw mais nag waxi Sëñ Muntaxaa moom waaw la sant warul wax ba pare kenn du ko contesté loolu c'est pas normal jafandul tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru dara picking, picking up in the eye. I'm up to the game now.